stop bi arbitre bi woot am na avertissement aja Tefa Robert Ndiaye Robert Ndiaye am na ngemb Robert Ndiaye am na ngemb Robert Ndiaye eh Tefa daan na eh. Robert Ndiaye Tefa Tefa war na ko nombo Robert Ndiaye daan na Tefa calme Robert Ndiaye daan na Tefa ay woyo Politique Générale TV Mbadine Beret quelle belle chute Robert Robert Ndiaye oh, Seba oh. Seba war na ko Robert Ndiaye daan na Seba quelle manière Robert Ndiaye daan na Seba ay woyo Diouf Politique Générale TV Mbadine Beret na ko Robert Ndiaye daan na de CFA ay woyo Diouf Salle di génn na TV Mbadine Deret quelle belle chute Général TV